nga xam ne euh, mooy cat bu yaramaat cat cat bu yaram organiser ay élection suñ ko suñ ko tasaaree def ko tong-tong ci pàcc bu ci nekk lam ca war a dem budget bi ci njëkk mooy tong-tong ci pàcc bu ci nekk lam ca war a dem budget bi ci njëkk mooy communication jëm ci wàllum élection yi ñun budget boobu la ñuy laaj anam parce que gisuma panneau publicitaire bu wane ne liste yi ibbeeku na gisuma spot télé bu wane ne liste yi ibbeeku na dégguma ci rajo buy wax ne liste yi ubbeeku na kon budget bi jëm ci élection ci wàll woowee anam xaalis boobu anam fan commission bi organiser élection moom naka lay def pour que sénégalais yi am information comme quoi que liste yi ibbi nañu leen ku binduwul woon mun nga bindu ji ku bëgg a changer fa ngay voter nii ngay def ba ci militaire yi nga xam ne sax dañoo jógee ci militaire ñëw nekk léegi ay civil seen droit bi ñu am léegi bu bees muy seen migration bi ñu war a def changer de statut social sax gisoo ci lu jëm ci mbirum publicité pour xamal ñooñee naka la ñuy def nan la ñuy wax nan la ñuy jaar pour mën a bokk ci yii élection kon loolu mooy premier point bi wane ne Macky jubut élection yi ni mu ko bëgg a doxalee jubut jaarul yoon mooy premier aspect beneen aspect bi ci topp parenage moom soo koy jàngat da comprendre ne dafa mel ne mbër mu ragal mbër mu ragal ne man su may combat su may bëre sama catégorie bii la waaye du ma bëre ak eh, ku tolloog man doole foog ma bëre ñoo xamante ne ay poids plume la ñoo poids léger et ce qui s'est passé ci élection locale yi dafa wane ne sénégalais yi dañu am beneen jàngat ci élection ci seen réew sénégalais yi dañu am beneen façon defee politique ci mim réew et que élection législative importance bi mu am dañ ne mooy pencum ndaw réew mi bëgg ko mu bëgg moom dem bokk jongante boobu ñu ne ko yow il faut nga am naan ñu am un président boo xamante ne nii a chaque fois que ñi ngi wax mu élection mbirumu loi mbir mu nangam moom toujours nu mu ko tappale wala nu mu ko jaaree nu mu ko toujours rek mi ngi ut benn lay bu mu ci jaar c'est en fait moi je me dis c'est Macky est pathétique ci sens boobu il est pathétique pathétique grave te pourtant organiser des élections au Sénégal mu jaar yoon lu yomb la waroon mën a doon mais à chaque fois qu'il y a des élections on perd temps à forme bi façon bi méthode bi durée bi dayo bi non mais attends un pays qui se dit démocratique bu toll ne Sénégal chaque fois bu élection ñëwee ñun mouvement yi au lieu ñu nekk ci suñuy soxla mais on perd du temps à parler de parenage non du yoon ni mu ko jaarale du yoon mais quand est-ce que Macky Sall mooy dugal ci biir boppam que dans ce pays laa il n'est plus question moom mu def lu ko neex mënutul nekk mënutul nekk et que parrainage bi non seulement dafa aberrant mais aussi mënoon a yow CEDEAO la ca neex donc ngay jël mais yow ba pare aujourd'hui ñu tabb la ci bopp benn institution wu Afrique ku ñu tabb ci bopp benn institution Afrique naka la mu nee ñàkk a fulaal une institution bu nekk ci biir Afrique bu jël dogal ne ko li nga bëgg a def du yoon bàyyi ko mu ne moom faale ma loolu kon kooku nan lañ ko mun a joxee ay ndombal tànk ci Afrique naka lañ ko ko munee jox Macky yaa ngi isolé Sénégal Macky delloo nga Sénégal ginnaaw ci wàllum démocratie Macky yaa ngi nasaxal Sénégal Macky, ressaisis-toi pendant qu'il est encore temps. Le peuple sénégalais est fatigué. dañu sonn ci ay way wéy parrainage détail ñun dañoo romboon boobu aspect dañoo romboon foofu romboon nañ ko même Abdoulaye Wade à son temps a pu organiser des élections mais qu'est-ce qui lan moo xew pour pourquoi da nga bëgg a xañ citoyen ñu dem élection da nga bëgg a xañ liste indépendante yi ñu dem ci législative yi pour pourquoi xanaa wóoluwoo sa bopp wóoluwoo sa doole woo say militants mais laisse les gens voter laisse les gens être candidats mënoo ñu ko mënoo ñu ko empêcher li li li leer ba leer daal mooy wax ji li ko guddal li ko gàttal ñun suñu ay suñu cadre lu waxtaan liñ ci jublu mooy xaaruñu kenn la première chose mooy ñu ngi demander parce que les partis politiques yi nga xamante ne ñoom ñooy les partis politiques classiques concernés par ces élections la ñu jël seen matuwaay yu doy. nañ jël seen matuwaay seen matuwaay bi ci njëkk mooy nañu def le nécessaire pour inscrire seen ay militants ñu mënoon woon voté ñu mën ñi war a changer fu ñuy voté ñu dem changer ñu def ca la ca war boobu mooy premier aspect. parce que nag j'ai compris que Macky Sall li mu bugg mooy moment bi ñu ibbee liste yi mu bugg ñun ñuy perdre temps di xiin xiine ko xaan-xaan ci waxum parrainage moom mu profité ci dem inscrire ay nitam kon ñun on va faire une pierre au même moment ñu ngi xeex parenage au même moment on incite les sénégalais à aller s'inscrire massivement ci ni mu waree ñu daas fanaanal préparé toog di xaar duñ buñ ko may benn porox ndool dinañ xeex parrainage ce combat nous allons le mener avec le peuple sénégalais mais aussi dañuy inciter sénégalais yi fépp foo munti nekk demal nga voté yow mi nga xam ne amagoo 18 ans te incha allah balaa le 31 juin juillet di nga ko am sax ci nga bokk demal nga bindu ci kon. combat bi ñaari front yi mu laaj dinañ ko taxawal dinañ ñëwaat pour wax leen naka lañ ko fas yéene defee ak ci yan anam lañ ko fas yéene defee parce que nag trop c'est et que bu ñu bàyyi mu jàll xam nañ bu baax lim ci jublu te yi moo la gën a xam ne bu baax buñ ko waxee ne ko dinañ ci taxaw dinañ ci xeex moom xam na ne dinañ ci xeex leer na ko xamante nañ on se sait kon nag mbirum parrainage bi cour de la justice bu CEDEAO wax na nee nga doo bi comme nag yow déglu yoon yar ngay déglu yar bi moom mooy mbedd mi dinañ ko génn taxaw yow wan la ne la lii du fi jàll ku xamul yedd xamoo yoon xam nga yar maki yar la xam vip lañ di nga ko dégg yow vip ci mbedd mi dinañ ko réglé ak yow insha allahu rabbi beneen bi mooy ñi ngi wax jeune yi dem leen ngeen bindu ji dem leen ngeen inscrire parce que loolu moom mooy fulla ku ci inscrireul nag di nga raté coche bu am importance ci histoire du Sénégal parce que dañoo toll ci beneen tournant c'est important nous vous incitons à aller vous inscrire massivement nee nañ la kuy waaj a am 18 ans avant élection yi bokk nga ci ku bëgg a toxu fi nga doon voté jëm beneen bërëb parce que dañ laa affecté jëlee la Dakar yóbbu la Tamba jëlee la Tamba indi la Thiès mën nga ko def dawal gaaw koo xam ne militaire nga woon nga ra nga nga nga libéré mën ngaa dem bindu ji parce que léegi civil nga yooyu yëpp c'est des trucs ñi ngi doon xaar commission bi organiser élection mu wax ci ñu ngi doon xaar ñu def ci ay campagne defuñu ko ci te pourtant génn nañ koppar yu takk pour loolee waaye la leen ca neex mooy di ñu xin xiniloo ko dañu xaan-xaaniloo waaye du fi jàll bi yoon samay kàddu nag loolu laa ci buggoon a waxagum ci noonu waaye di wax rek que ne li ëpp solo ba ëpp solo mooy ne tout le Sénégal doit être pour barrer la route beneen ci beneen tappale akum lay bu Macky Sall bëgg a teg pour confisquer suñu ay élection parce que nag élection wu raw gàddu moom benn nit maa la raw benn nit mu ëppale la boo ko boo boo cay dem dañ cay dem ak say armes yépp kon sénégalais yi bindu ji leen waaye sénégalais yi ñëw leen ñu xeex parenage bi ndax yoon dàq na ko kon duñu ñu nangu Macky di salfaañe waat suñu yoon. jërëjëf Thiat ñu jox kàddu gi euh, Abdou Karim euh, Guèye. nitu dëgg valeur